السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الردوان والتمكين جنا وإن صنت يا الله جلت ينتبه صلى الله عليه وسلم لصنت الشيخ الخديم di jital ci nuyoo bi ak ziar bi di ñaanal serigne Muntaqa mbacke mu yag fi lol te wér te mu agale nal yi yi mu yéene liggéeyal maamam Cheikh Ahmadou Bamba khadim rasoul di ñaanal bu baax serigne Moustapha mbacke mi nga xamni mo tok toog toogaayu Cheikh mohammed Lamine bar mbacke bu baax diko ñaanal bu baax mu yag fi lol te wér di ñaanal njabootu Cheikh mohammed Lamine gi yépp liko commencé ci wa keur Serigne Modou Baara Mbakke bu wàcc ci wa keur Serigne Khadim Awa ñom ñëpp yàlla suñu borom defal leen tawfiq ak gudd fan ak wér. di ziare bu baax njabootu Serigne Touba gi nek ci base bi bu baax baax di leen wat bu baax di wax ni kàddu yi wala cianté ji mom maton na seuk doyna seuk comme niko Serigne Abdoul Qadim mom Serigne Khadim Modou Baara waxe te muy. wax ju wér te matal lépp ndax li waroon a wax lépp wax na ko xamle nañu kan mooy yàlla suñu boroom ak ni mu mel ak ni mu yeyoo ñu jaamu ko te sant ko jaarale ko ci jëwriñam bi muy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam it lim ci wax mu mat sëkk nga xam si ni bu doon mbubb mànkiwul ëpp lu yeesul wàcc ba ci sëriñ Tuubaa mi nga xam ni lépp lu lu ñu nekk moo tax mu mat ko sëkk tamit ndax waxtaan balaa am maanaa day day am tartib organisation jaar fu mu war a jaar te moom ni mu ko defee dafa mat sëkk wàcc ba ki nga xam ni moo tax ñu toog ci baas bii muy Cheikh Mouhamadou Lamine kon Serigne Abdou Abdoul Khadim waxtaan bi yal na la ci yàlla suñu borom defal ndam defal la ci tawféex te yàlla na na na naabal la sam xel ba lépp loo sumb ci waxtaan bi yàlla may la ko ci barkeb Sëriñ Tuubaa ndax ñun ñu toogoon di déglu ak képp ku fi nekk tamit li nga dangay yóbbu lu yóbbul bu am solo comme ni nga ko waxee rek képp ku bokk ci famille bokk ci njaboot muy comme njabootu Serigne Touba li ko commencé ci Serigne Modou Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadul Mourtada ak seexi Serigne Touba yépp kenn ku ci ne war ngaa fexee góor góorlu ba li ngay li ngay yéene liggéey ba bu ëllëgee kenn ku ci ne bu ñu dajee ak Serigne Touba muy njabootu Cheikh Mouhamadou duñ ci am benn gàcce te loolu yàlla yaakaar naa defal na ci Cheikh Mouhamadou Lamine ba njabootu sëriñ Baara muy gone muy mag kenn ku ci ne foo nekk nit ña danañ la fa naw lool joxaloo cër lool ba lépp looy def dinañ la bàyyi xel te loolu liggéeyub nitu yàlla la liggéeyub wàlliyu la ndax sëriñ Baara teel na fee jóge lool bàyyi fi ak njabootam ñuy taxawu loola ba fi mu ne nii yaakaar naa doomu Cheikh Mouhamadou Lamine maanaam buñ ci exemple ci góor kenn desatu fi te teewul liggéeyub sëriñ Baara bi mi ngi law te lépp lu ci war mi ngi mi ngi dem na mu war a demee kon liggéeyub nitu yàlla ak liggéeyub Cheikh Mouhamadou Lamine moo waral loolu lépp kon daal kaddu yi kaddu cant la cant mënut a paase cant. di wax ni tamit euh, serigne khadim mbacke mi nga xamni dafa bokku ci ñi nga xamni serigne sele tudde nako bis bi momit bëggon na jël kaddu waye ay kaddom neena ñu yobale ko ko rek momit kaddom munta passé tiant mi ngi sant bu baax sele diko ñaanal ci taxaway bi mu taxaw di liggéeyal serigne bara di liggéeyal jaarale ko di di liggéeyal serigne touba mi ngi lay mi ngi ko wax ni mi ngi lay ñaanal bu baax nga gëna gor gorlu te fi nga nekk gën cee gën cee sax ndax àdduna lii rek a fii des liggéeyal yàlla akub yonenteem ak Serigne Touba jaarale ko ci Cheikh Mouhamadou Lamine comme ni ko Serigne Abdoul Khadim waxee rek jataay bi yaakaar naa mag maanaam xale yi fi toog waxuma la vingt ans sax waaye kenn daan waxuma la trente ans sax waaye kenn amagu ci vingt ans ki organisé bi sax yaakaar amagul vingt cinq ans yu mat kon gën a góorgóorlu rek ba li yàlla digle akub yonenteem te li sëriñ Tuubaa bëgg ñu nekk ci rek ñu gën caa sax ba faw faw faw kon kàddu yooyu ne lañ ñu rek nañ ko fi yëkkati ndax euh, jataay bi yàgg na te kilifa yi tamit tee leen ci jataay bi day metti ci lay metti lool mm, bàyyi sele ñu ngi lay nuyuwaat bu baax di la ziarewaat di wax ni sëriñ Saalix mi nga xam ni tamit moom nga yaakaar mu ngi sëriñ Saalix mu sëñ Xaadim Awa Ba te ñu teewal ko fi teew fi ci ndigalam moom it saw nekkin ak saw doxalin ak ci li nga nekk gërëm na ko lool ba sant na la bu baax a baax kon nga gën a teg sa tànk fi nga ko teg gën a góorgóorlu ndax euh, am nga taalibe am nga yar am ngay tekkin te maanaam ku la gis dina gën a jaajuwaat gën a mën a liggéeyal Serigne Touba kon sa buntu ci Serigne Touba muy Serigne Salim mi ngi lay gën a ñaanal mi ngi lay dénk nga gën a góorgóorluwaat bu baax a baax ñi ngi sant kilifa yi fi nekk yépp di leen di leen ñaanal yàlla suñu borom defal leen dam defal leen tawféex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 bokki jullit yu tedd yi bokki taalibe fi teew sunu kilifa yu baax yi yépp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax di yëkkati kàddu ci turu sëriñ xaadim Diop moom Seex Ahmadu Bamba Diop moom sëriñ Ceerno Diop di doomi sëriñ ñaan Diop mi ñépp xam ci pencum wala ci ëttub Cheikh Mouhamadul Amin Daara bu doy sëkk ñu wax ne moo sañc barab bii di guy mbind moom la ko sëriñ Baara digaloon mu sancal ko ko ngir pas-pas bu mu yéegoon ci moom waaye itam doyloo bu mu ko doyloo woon ci mboolem liggéey yi mu ko doon sant te la wane pastéef mooy ba mu koy sancloo daf ko doon wax ne bu mat ñaari weer waaye mu sanc ko ci benn fan kooku mooy maami Serigne xaadim Diop mi nga xam ne moom lañuy ñuy yëkkati kàddu ci turam mu mel ni li sabab mu teew fi it mooy suñ selefaal mii ak ñi ànd àndal liggéey bi dañ koo tànn boole ko ci ñi jagleel dara jaare leen tudde leen bis bi suñ sele nag bu tànnee suñ xaadim boole ko ci ñi nga xam ne ñoom lañuy tudde bis bii def na lu jaadu def na lu war fedd li na kóllëre delloo na njukkal fàttaliku na démb te yooyu bu mu ci doon rekk lu mat a def la ndax bokk na ci ñi sëriñ xaadim tàggat ci daaraam jàngal leen yar leen ni ko defaree ndaw ñu bari ci gox bii ñu nekk te nee ñu man àllamaka xarfan waahidan fa huwa mawlaak ginnaaw nag jàngal na ko xëy na bu fekkoon da koo jàngal te nawu ko it du ko tudde bis bi waaye da koo jàngal ba noppi mu wëlbatiku naw sëriñ xaadim ci jikkoom tax mu boole ko ci ñi jagleel bis bi jagleel bis nag mel na lu am solo la ndax bu fekkee dañoo dellu ci képp koy tudde aw tur danga bëgg mu barkeelu ca tur wa fa xazu kulli musamman min sumaahu sama kenn ku nekk cër ba ngay am mi ngi bàyyi ci tur ya nga xam ne moom lañ la tudde واعلم بان كسرة الاسامي تدل ان المسمى سامي كون بس بونكو جيري توديكو اي كليفا داي ملني تولو اي بس بالاي واني كون لو ام صلو لا سيغ خاري مي تي سانت بو واخا باخ بي واخني خولم سدنا تي لول waaye moom daa jàpp ne daa bokk ci ñi fi ñëw rek ngir jariñu ndax ku ne xam na ne fu mu dégg lu baax rek ma nga fay teew ngir njariñ lam fay jële kon bis buñ ko wuto nit su ko yëgee dana ci teew ngir njariñ yi fi bal muy xaside yu am solo yi nga xam ne tout tànk yi nañ ko fi mu neex lool tam bokk ci ay bëgg yi xolam dina na naa rel gi don jang xam nañ ko wax waye tam waxtaan wi nga xam Serigne Abdul khadim Aman mako fi muy waxtaan wo wax dëgg yàlla ku bëgg a dégg te bëgg jariñu rek dégg nga te danga jariñu yàlla nañu yàlla defal dégg ak topp waxtaan yu am solo lool te wér lool itam kon nee na njariñ yooyu rek jaroon na mu teew fi kon tudde gi daa ñëw dolli ko ci waaye njariñ yi mu fi dégg jaroon na mu teew fi kon mu leen di sant day amul tàmbali waaye amul fa mu yem ni nga ko waxee it yëggum yëg bis bi moo tax mu tànn ci ay rakkam mbooloo ci ay wóllëreem ci ay xaritam ba ci njaboot gi ci kër gi soxna yi ànd ak ñoom teew ci bis bi ngir jëmmal turu am solo yi nga xam ne wala dara ju am solo yi nga xam ne féetale nañ ko ko ndax dangeen koo yëg te nit ki nag saa bu la yëgee amul lenn lu ko mën a fay lu dul nga yëg ko rek képp ak yëg moom yëg dong dong moo ko mën a fay te ku bañ ko la yëg amut ci kaw suuf ginnaaw suñ borom tabaaraka wa taala borom lim ñuy sant ñu koy jëfal lépp ñu fàttali ko yëg ko rek lañ jublu waaye julli yi ko dara jaamu yi jëriñu ko dara kon ñu koy fàttali ko yëg ni am na rek la ci jublu kon bu ngeen ko tuddee bés da koo yëg kon yëg googu yi jàpp na ne teewaayam bi sax xeebu na ci fay leen waaye nag kon ñaanal leen ndax ñaan moom addu'a u silaaxul mu'min ak jullit moom ngànnaayam mooy ñaan kon ñu ngi leen di ñaanal yàlla fay leen ci bis bi lu ngeen ci mébét yàlla na ngeen ci am lu kawe seen jort ci barkeb Cheikh Mouhamadul Amin mi nga xam ne moom la ñuy sant ci bis bi ko defee sëñ xaadim ku ko tànn tudde ko bisit danga ko tuddee nit ku baax ku bëgg lu baax koo xam ne dundam gépp jàng alxuraan jàngale ko la te loolu dana baax ñun ñi fi teew ñépp ñu xam ko ngir liñ mën a roy ci ay jikkoom ñu roy ko ci ay jikkoom ndax yaakaar naa jikkoom yi tedd yi moo tax ñu tànn ko boole ko ci ñi jagleel bis bi ay jikkoom yépp nag mooy alquran niñ ko waxee woon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam kaana xuluquhul quran kon mi ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax a baax di gërëm mboolem ñi fi teew di sant kilifaam yi nga xam ne ñoom la fekk itam ndax ay kilifaam la fi dajeel muy waa kër si Ahmadul Amin ndax ko tudd sëñ ñaan tudd Cheikh Mouhamadul Amin ndax moom boroom ñaari ngërëm la yàlla gërëm na ko waaye liggéey na Cheikhul Khadim ba mu gërëm ko boole ko Serigne Baara mu liggéeyal ko ba mu gërëm ko kon moom it fu man nekk rek barkeb Cheikh Mouhamadul Amin boobu lay sàkku te di ko sàkkoo ci njabootam ci kon yàlla na yàlla fay leen aw yiw ci tànn ngeen ko tànn darajaale ko bés bii te lu ngeen ci mebet ba tax ngeen taxawal ko it loola ngeen ci ak lu kawé seen ñort ci sunu tur bop nak ñi ngi siaré mboolem ñi fekk ndax suñuy wolare nga fi suni xarit nga fi te gën nañ ñoo gis waaye di leen wax ne lañ doon def ci réew mat na bis nañ ci jamm di sant bu baax cheikh mohammed cheikh sidil mukhtar mi nga xam ci ndigalam lañu démé won mo ñaanaloon ñu itam ñaan goo xam ne wax dëgg yàlla ñun ña demoon ca réew ma gis nañ ko bu baax a baax ndax diirub ñaari at ñu nekk ko ci barab te kenn ci ñun ku feebar bañ di ko seeti amul te mboolem ñañ fa nekk dooloon ñu ci ëpp feebar nañ ba dellu ci réew mi loolu ñaanu Cheikh Sid muhtar moo ñu ko may kon yàlla na ko yàlla dolli ngërëm te dolli ñoo taas ci barkeem wax dëgg yàlla ku mata ñaanal la waaye itam ku liggéeyal maamam cheikhul Xadim la kon ñu ngi leen di siyaare yéen wëndare yeeg xarit yeeg sopp yi yépp di leen ñaanal jàmm ak tawféex di ko sàkku ci yéen di jéggule ci kàddu yi bu baax day mel ni ku fekk Sëñ Abdul Xadim wax ba noppi li mu wax am solo lool boo ca bëggee teg ay kàddu dana jafe lool ndax dana jafe lool li Seex Mahamadu yi di wax ne sër bu jot moom ñambaas ko da koy yàq waaye jekk-jekkal li nee na moo yàqoon ba ci goba kon jéema ñoo jekk-jekkal mu waxoon xanaa kay dañ doon jéema jëfe ndigal rek waaye kàddu yi lépp jot na sëkk xanaa ñaan yàlla defal mu dégg ak topp rek wasalaamu aleykum wa rahmatullahi